والشيخ أحمد تيجان ما يورد تريويا والشيخ أحمد تيجان الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يزل عليا ولم يزل في علاه سنيه إذا عملته وجدته مليا وإن عاهدته وجدته وفيا قطرة من بحر جوده تملأ الأرض ريا ونزرة بعين رحمته تسير الكافر وليا الجنة لمن أتاعه ولو كان عبدا خبشيا والنار لمن عصاه ولو كان شريفا قرسيا والصلاة والسلام على أصرف المرسلين سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين موكي مبكي جلتي جناب شانت يالله جلت رسول الله صلى الله عليه وسلم نيغلن دي نيو دي زيار فتبارك الله دي نيان يالله ريومي دي سنغال يالنا في يالله دوتي جامك سترا خيولن بكته تدرجي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ñu ngi ñaan yàlla réew mi yàlla fi alxuraan gën a am doole ci daraje nabi Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ndax alxuraan mooy solution bi macha allahu taala di nuyu kilifa diine yi nga xam ne ñoo nekk ci réew mi dañuy dem ba woon fekk sunu baay macha allahu taala sunu xarit sunu sëriñ sunu xalifa sëriñ Babacar Sy Mansour ibnu alxaaji Mouhamadul Mansour ibnu Cheikh Seydil Xaaji Maalik radiyallahu taala anhu ñu ngi koy nuyu di ko ziar. di ko ñaanal yàlla juma ji mu tàmbale yàlla na ko daloo ci daraje rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam nuyu rakkam sëriñ Maodo si Dabbaax nuyu rakkam sëriñ Babacar si Abdou fa tabarakallahu nuyu mbooleem njabootu maam Seydil Haaji Malik radiallahu taala anhu dem ba Louga fekk sunu baay sunu sëriñ macha allah Thierno Bachir Tall ziar ko bu baax a baax a baax ñaanal ko yàlla moom it yàlla na yàlla guddal fanam yokku wéram ci daraje rasulillahi sallallahu nuyu sëriñ si Ahmada Tijaani Taal ibnu Cerno Makki Taal ibnu Muntaha ibnu Daha ibnu Cheikh Alhaaji Omar al Fuuti tabaarakallaahu di sunu xarit di sunu soppe macha allahu taala taal ñu ngi lay nuyu di la ziar di la wàccee sa wàccuwaayu maam macha allahu taala waaye di nuyu Cerno Xaamidu Baan macha allahu taala di ko ñaanal yàlla mission bii nga xam ne moom la tàmbale yàlla na ko yeggale ci daraje rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ak mboolem ñi nga xam ne ñoo koy jàppale ci mission bi yàlla na yàlla dooleel leen kattanal leen macha allahu taala ba fi ñu bëgg a yóbbu diine jeeg tariqa bi macha allahu taala mu yegg fa mbokk yi macha allahu taala tey nag ñëw fa yéene waxtaane cheikhuna tijaani radiallahu taala anhu barzaxul maktum taajil aarifin mu middi kulli awliya arrahman macha allah nga xam ne weer wi weeram la ndax bul fàtte na 18 safar 18 safar ci la ko euh, tabaarakallahu ci lañ ko rangal maqaamam bu rëy boobule kon cheikh lañ bëgg a waxtaane tey ñi ko xamoon xam nañ ko ñu gën koo xam ñi ko xamul woon xam ko fa tabarakallahu ndax waxtaane cheikhu tijaani tiyaaba la cheikh macha allahu taala day wëlli yu boo xam ne bokk na ci ñi nga xam ne ñoo defar jamono ndax maam sidi xaaji ma radiallahu taala anhu daf ñu jàngal ci benn xasidaam ci xasidaam yi mu taalif mu ne rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam dana kaay ma jox la loo xam ne mooy sauver àdduna bi mooy sauver jullit ñi parce que di ngi dem ñu ngi jëm ci euh, jamono joo xam ne bàkkaar dana bari lool mooy yàlla gi dana bari lool mais nag li lay mën a sauver leen rek la te yow laa ko fas yéene jox yow sama sët yow cheikh mam sidi xaaji malik moo ko bind nettali ko moo ne amara nabiyu imamana bi tanazuli li ifadati al axlaaq bil wirdil jali فأجابه بمقاله صافي الرضا فجزاه ربي عن جزاه الأجزلي إن كنت بابا للنجاة موقيا متعلقا بجنابنا الحامل علي فنعم سيدي أجمال لنا أمر ديقلنا النبي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم moo إمامنا سننجيت suñu njiit شيخ di cheikh bi tana zuli ci لإفادة الأخلاقي ngir mu mën a jariñ doomu aadama yi bil wirdil jëli ci wirdi bii nga xam ne wirdi bu màgg la bu feeñ la fa ajaabahu seex tontu maamam bi maqaalihi ci waxam ja asaafi ba daa ji sell ku ñu gërëm ko moom cheikh xaw lu mu ko tontu ah in kuntu baaban lin najaati muwaqiyan mutaalliqan bi janabina alxaamin ne yow maam lii nga may ah képp ku ma ko jox nga mucc képp ku ma yaakaar mucc képp ku ku ku sóobu tarixa bi texe d'accord naa waaye bu fekkente ne lii mënuma ko ci am kon ban ngeen laa ci am maam Seydina Muhammad d'accord ak moom moo tax boo demee ci faakihatu tulaab bu sunu maam Cheikh Seydi El Hadji Malick radiyallahu taala anhu ma nga naan awalu damaanil Mustafa al Adnaan li xisbihi al mawta ala al iman Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam accord bi mu njëkk a def ak Cheikhu Tidiane ah, dafa la ko demand neena na mooy taalibe cheikh buy génn àdduna day génn àdduna ci ngëm yàlla te mbokk yi ku génn àdduna ak ngëm yàlla dem aljanna la sekk fii amul benn sikk sàkkane bépp jaam boo xam ne bi ngay génn àdduna dangaa génnaale ngëm yàlla aljana nga jëm amul sikk nekku ci te nag Cheikhu Tidiane rasulillahi moo ko warlul ne ko say taalibe bu ñuy génn àdduna dañuy génnaale ak àdduna ak ngëm yàlla awalu damaanil mustafa al adnaan li xisbihi al mawta ala al iman te kii wax lii kuy waxantu maam taala anhu ku gis ku ko gën a ragal yàlla wax ma ku gis ku ko ëpp wax ma ku gis ku ko ku ko gën a wax ma yàlla bëgg rasulillahi ragalam yàllaam ak wóolu yàllaam ak yaakaar yàllaam bind na ko moo ne falaa budd mënul ñàkk man Maodo min waa ci ma tawat ilallahi jëm ci yàlla kurbati samay njàqare ndax famaaliya xamuma ghayra allah kudul yalla ko xamne jabiru kasrati man na régler sama problème motax ma bàyyi fi ñepp dem ci yalla ndax kat waqara ya sama fëgg waqara ya sama kharan babal ghayri keur keneen ya rab yow sama borom lam yufit duma fa am lama bëgg lolo tax li zaaka bama ma xamee nak sarrafna la wagne ko nahwa babika ñew sa buntu yow yalla wijhadi sama anam yep jebal lepp ndax yalla yay fajj ajo yi ki ndax da jël bopam jox keneen ko dul yalla am déet dafa jël bopam jébal ko boromam waye nak mu xam yalla bu baax tag yalla nak ne ko fa ante yalla karimun ku tedd nga te kat karim ku tedd manil tajaa ku wéeru ila babiki ci ya man dina am kóolute ne ya man dina am sécurité ala kulli niqmatin ci bépp mbugal ne diko laal lo ragal ba làqu ci yalla lo du la ragal ba làqu ci yalla lol du laal ragal ba ci yalla lol du man ci yow tous ndax yàllaa ko ëpp doole te yàllaa ko yilif Seydi Haaji Malick radiyallahu taala anhu moo nettali lii mu ne Seydina Muhammad moo warlul cheikh ne ko say taalibe bu ñuy génn àdduna dañuy génnaale ak àdduna ak ngëm yàlla ba ci topp mooy taxfiifu rabbi sakaraati mawt taalibe cheikh buy génn àdduna sukuraat bu bu bu bu sedd lay sukuraat way su sukara di wéqu su di yuxu su ko kat di kat di koku ab cheikh du ko def parce que yonent yalla Muhammad mo ne cheikh sab taalibe buy sukaraat du ko yëg moo tax ci gis da ngay gis ne rek mom daa julli ba fajar fajar ba nopi wer du wer ba nopi genn aduna mom kat mi genn aduna jara jotu ko et pourtant le do waxtan lo rek ngay deg way taalibe cheikh buy genn aduna du ko mukk parce que rasulillah moko warul cheikh tidiane wala yarawna fil qubuuri xayra ma yasurruhum te kat seeni biir bàmmeel taalibe cheikh yi duñ fa fekk lu dul lu leen di bégloo nit dina génn àdduna bàmmeel naj ko naj ko naja naja naja naj ba soow ma mu nàmpe woon ci yaayam di gàll di génn nit dina génn àdduna nekk ci biir bàmmeelam jëfam nekk jëmm ju xasaw xeeñ xunn lool ñëw di ko wéttali muy bëgg a dee nit dinañ ko suub ci biir bàmmeel jaan boobu ñuy wax soxbaanu mu biin ñëw di ko wétali ci bàmmeel di ko mat mu nekk ci ay musiba ak tolof-tolof waaye nag taalibe cheikh yi moom bu nekk ci seen biir bàmmeel dañ koy yaatal ba mel ni saal bu ñu climatisé ñu nekk fa di noos ba ëllëg yemal xiyaam ñoo réglé leen ñu dem aljanna loolu yant yàlla Muhammad moo ko warlu cheikh kon nag taalibe cheikh doon ko du caaxaan te kat seri cheikhu tijaani mii dafa wax wax jo xamne kep képp koy talibé cheikh wax joju warna la doy seuk nga xamne ki nga andal du du du du chamo cheikh neena lepp lu ngeen ne ma lu ngeen deg ñu ne man cheikh mako wax na ngeen ko nattaleeg sharia bu tolloog sharia man cheikh mako wax bu tolloowul ak sharia man cheikh waxumako ki dégager ay responsabilité dama ne wax ji mu wax buñ ko ci top am kenn du ko ci do ci bari ku ko ci toppandoo ñàkk say taalibe waaw waaw ko ci toppandoo ci wax ji di nga ñàkk ñu bari ci say taalibe ma la ko wax waaw waaw la shakka fiihi cheikhu tijaani barzaxul maktum taajil aarifin mu middi kulli awliya rahman sept ans ci yow moo ko alquran fi xale di di dal daara cheikh fa la toll moo ko alquran karim à l'âge de sept ans la aji màkkatal mukarram faqihi nazif yi moo wax nit yàlla bu mag ne lahu xijajun sabon li saabici sinnihi wa itqaanu qur'anin li za sinni musjala nee na cheikh bi amee ba sept ans aji na màkkatal mukarrama sept fois xanaa kon daa judd rek aji màkkatal mukarrama bi am sept ans moom cheikh mokkal na alxuraan comme ni ko yàlla wàcce woon moo tax suñu wax ji maam Sidi Xaaji Maali wax ci faakatulaa fi nga koy déggee bi yent yàlla Muhammad ne cheikh ana murabbika maa yar fan la ko yaree wa anta waladi yow sama doom nga wa cheikhuka al abarru kulla musnadi te maay sa sëriñ bi gën a baax ci yow kon yon cheikhu tijaani sëriñam moo yontu yàlla Muhammad yontu yàlla Muhammad maay sa sëriñ bi gën a baax ci yow kon fan la ko jàngalee loo ngay question bu ngay posé fan la ko jàngalee ok kon daa mokkal door a ñëw moom cheikh radiallahu taala anhu moo tax innahu xaatimul awliya moom cheikh moom mottali wàllu yi comme ni maamam rasulillahi mottalee yonent yi wa sayidul aarifin aarif billahi yi seen sang mooy cheikh kuy xam yàlla ku ne ko gën a xam ci ci ci wëllu yi mooy cheikh wa imaamu siddiqin gaa ñu dëggu bañ tuddee leen as siddiqin ka leen gën a dëggu mooy cheikhu tijaani wa mu middil aqtaabi wal axwaas kii tëbb mboolem aqtaab yeeg axwaas yi mooy cheikhu na tijaani yi alxawsu bu ñu ko waxee mooy ki nga xam ne moo toog ci xutbaan di dox bu maqaam bu bu kawee bu al xutbaaniya ñu koy tuddee al xaws ndax xaws mooy jëmmi xetal moo tax arab yi dañu tuddee al matarosa al xawsu léegi dañu tuddee taw al xaws mooy xetal parce que taw day xetali su tawee gàncax gi sax lépp ñor nit ñi ko taw day dindi bekkoor moo tax arab yi di ko tuddee al xaws yenn saa yi wa annahu huwa al qutbu al maktuum والبرزخ المحتوم شيخ موي قطب بيغا خامن دا نكو نيب قطب بي بارينا نيو دا بي في شيخ جوغي ام نيو كو دون سي قطبان يا واي شيخ موي قطب المكتوم بو ديغي قطب المكتوم رك شيخ لا دو كنين والبرزخ بو ديغي برزخيت شيخ لا المكتوم بوكو ديغي شيخ لا قطب المكتوم موي قطب بيغا خامن دا نكو نيب با كين خامكو دا نكو ريري xataa cheikh ci boppam li ko yàlla defal ci ay maqaama sa ak i garaat ak kenn moom sax bu ko waaye ci li xam ci boppam moom cheikh nee na yàlla xamal na ma ay xeetu xam-xam yoo xam ne man cheikh su ma ko waxoon ñu ne ma yéeféer laa rey ma ndax xam-xam ñett la bi nga xam ba pare ñun la na nga ko xamle ak bi nga xam ba pare ñun la ñun la na nga ko xamal ñenn nit ñi ndax ñëpp bokkuñu dafa am ci nit ñi ñoo am ay ay awaam lañu am ñu am ay xaas lan am ñu am xaasul xaas lañu nit ñi bokkuñ ay catégorie yu wute lañu am na xam-xam yoo xam ne am na ñoo ko mën a xamal ñoom rek am ñu waa am ñoo xam ñu koo xam waaye am ci xam-xam yi yoo xam ne amul droit xamal ko kenn moom cheikh moo tax mu denc ko ànd ak moom al barsax mooy intermédiaire barsax soo ko déggee mooy intermédiaire moom moo moom moo toog ci diggante yenent yi ak wëlli yi lépp lu bàyyee ko ci yenent yi ci cheikh lay jaar door a ñëw ci moo tax boo demee ci fatxu rabbaani yi mu koy wax nee na te waxi cheikh lay nettali mu ne inna fuyudaati allati tafiidu min zaati sayidi l wujud sallallahu ci jëmmi rasulillahi nee na euh, fa faydu yi bàyyeekoo bokk ci sunu boroom waaw faydu yi bàyyeekoo ci sunu boroom faydu yooyu benn euh, benn jëm moo koy taataan muy rasulillah waaye nag faydu yi bàyyeekoo ci rasulillah yi jëmm yi koy taataan mooy cent vingt quatre mille prophètes yonent yi ñoo koy taataan ñoo koy taawu ñoo koy récupéré waaye nag bu jógee ci yonent yi nag ci cheikh lay ñëw waaw cheikh nag moo koy tasaara nag di sedd wunti yàlla yi ku nekk ak lam la sedd waaw nit yàlla bu nekk mu sédd la waaw moo tax mu ne inna inna alfuyudat allati tafiidu min zaati sayidi alwujud sallallahu alayhi wa sallam tatalaqa zawatu l anbiya nee na faydu yi bàyyeekoo ci jëmmi sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nee na cent vingt quatre mille prophètes yi ñoo koy taawu wa kullu ma faada wa baraza nag min hadrati min zawati l anbiya tatalaqaahu zaati nee na lépp lu bàyyeekoo ci ci ci jëmmi cent vingt quatre mille prophètes yooyu شيخ نينا سما جيم جي موكاي تاو ومني يتفرق على جميع الحلائق من jamii من نسعة العالم الى نفح في السور شيخ نينا من ماكاي تساري bu jógee ci 124 000 prophète yi man cheikh man rek koy taw mako taw maa seddel ci mbolé mbindé fi li nak mu ngi dalé ba yàlla sosé aduna bi ba karok ñu wal buftu ba cheikh néna wala yasrabu waliyun ولا يسقى إلا من بحرنا من نسعة العالم إلى نفح في السور amul benn wëliyu buy naan ci déegu rasulillahi lu dul ne man cheikh maa ko jox kaas mu naan pour nga dégg wax ji te loolu nag man lañ ko dénk ba keroog wal buftu ba waaw moo tax ibrahima rayaaxi waxoon waxam jurëja ne zaaka allazi naala maa lam yaxwihi basharun min al ataaya walan yuraf bi miqyaasi mu ne kii di cheikh moo làq ci boroomam ay may yoo xam ne benn mbindeef làq te amul ku koy tolloleel moom cheikh waaw cheikh kat laazama maa laazama xatta naala min rabbihi nawaala cheikh dafa taqoo li mu ba am la am ca yàlla ci ay xeetu may cheikhu Tijaan radiallahu taala anhu wax naa ne à l'âge de ans mokkal na alxuraan bi mu amee vingt vingt ans boobu fekk na mu jàng lépp luy xam-xam bi am 36 ans fekk na mu gëstu ay góor yàlla yu bari moom Cheikhu Tidiane yi di gëstu góor di wër góor yàlla yi fu ma xam nit ku baax ku yàlla may dara cheikh dem na ci yow jëflante yow ba jël ci yow dara te bu ñëwee ci yow la gën a foor ngay jël jox ko cheikh pour wan ne xëy na lay na cëpp ne maa ngi daa jaar fi jaar cheikh daa ñafe waaw dafa ñafe dafa jàng ba dafa dafa sóobu ci yoonu suufu yanke yi di gëstu góoru yàlla yi di dem ci ñoom waaye nag góoru yàlla bu ko gis xol ko da koy bëgg automatiquement parce que yalla moko ko lolu mom cheikh tay boko jox dang koy jox li nga gëna bëgg waye nak yalla dogal na 39 goor yalla yoy mu wër yëpp amul kenn ci ñom ci ko xamne ci mom la amé fatux amut Muhammadul Kurdi la mujjé dajel Muhammadul Kurdi bim ko gisé rek dana ko anta mahbubullahi fi dunya wal akhirah yow de ko ñu sop nga fa yalla ci aduna ak akhirah waaye yow cheikh loy sakku cheikh ne ko sama càkkutéef mooy xutbaaniyatul uzma góor yàlla bu fa yegg rek am nga grade bi gën a fort ci wilaya xam nga lu ko wax la ko akthar min zalik muhammadul kurdi dina ko yow li nga am mu ëpp xutbaaniyatul uzma xutbaaniyatul uzma yow cheikh li nga am moo ko ëpp doole moo ko gën a fort gannaaw ga nag la dajeeg maamam rasulillahi sayduna muhammad feeñu cheikh yaqasatallah manaaman jàkkaarloog cheikh nii ne ko nag watruk jamia ma bihi ahasta xata tafuusa kulla ma waidta من غير حلوة ولا اعتدال سبحان ربي دائم الكمال ولا نك ولا بوكس نك شيد حاج مالك واخون سما جومل سي كادو مو نكو باي ليپ لو خامني مام غا جابون سي غور يالا ييغا جاون ييب دي وور باي ليپ مان سا مام ما جوخ لا لو خامني مو گن ديسان مامام رسول الله مكو جوخ لي گن مكو جوخ صلاه الفاتح مكو جوخ استغفار مكو جوخ لا اله الا الله جوهره الكمال استغفار مبكي خم جنة خم جنة استغفار آه يلا ورد القرآن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مضرارا ويمضدكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا يلا نجيغل لن سن بكار يين جلتني دي لن جيغل سن بكار فعل أمر لا ورنتي كيب كي جلت سابو خيين جيغل سن بكار rasulillahi mi nga xam ne yàlla nee na ko ah, ah, jéggal naa la say bàkkaar yi passé gi bëgg a ñëw te teewul saa bu xëy dina jéggalu yàlla soixante fois ba pare yàlla wëlbati ko ne yéen jullit ni dee leen kon jéggalu sa borom farata la yàlla ne su ngeen jéggaloo yàlla su ngeen ma jéggaloo man yàlla dinaa digal asamaan mu taw taw barke te taw barke mooy saxal gàncax gu nar a am barke mu meññi meññu barke soo ko jaayee la nga ci am ci alal mu barkeel mu mën a feeñ sa dundu bari na ko yor alal ji bari xëy-xëy alal ji na furaas doo xam fu mu jaar doo xam loo ca def tabaxoo ca kër jëndoo ca oto jëndoo ci yére jëndoo ci dara alal ji daal nee na furaas dem te yoo xamoo fu mu dugg la ngay toog sa di poser question waa man alal ji ma yoroon fan la jaar parce que amul barke waaye li nga yor lu mu néew néew néew su amee barke feeñ sa dundu wa yumdidkum bi am amwaalin wa baniin yàlla ne bu nga saxee ci istixfaar su ma ko nangoo dinaa leen may alal may leen ay doom te bari na ñuy ñaan alal mun ñu koo am seen istixfaar moo seen la gudd wala boog dañoo sóoboogu ci yoon waaye boo sooboo ci istixfaar sellal sa istixfaar di ko def ni ko yàlla bëggee bi ngay def istixfaar jamono jooju le sa bët yi yaa yaa ngi ci sàmmonteeg dootu xool lu xaraam sa làmmiñ dootu wax naka su dul noonu sa nopp noonu sa biir noonu sa awra noonu lépp nga sàmm ko sa istixfaar nga di ko def mu sell comme ni ko yàlla santaane yàlla dina la may alal may la ay njaboot kon yow mi ñàkk alal te bëgg ko sellal sa istixfaar yow mi ab bëgg di sëy te mun loo am doom wala yow mi am soxna te mun loo am dool doom sela la sa istixfaar yàlla may la doom waaye nag wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhaara ni ko istixfaar bu sellee sax yàlla la may aljana boo xam ne ay dex a koy wër dexee nag ñeent la alxuraan moo ko wax masalul jannatu allati wa'ida almuttaqun fiha anhaarun min ma'in ghayri asin wa anhaarun min labanin lam yataghayyar ta'mu wa anhaarun min khamrin lazzatin lisharibin wa anhaarun min asalin musaffa dex yaa dexu soow la dexu ndox la dexu sàngara la dexu lem la soo naanee ca ndox ma dootoo faatu boo naanee ca soow ma dangay am kattan boo naanee ca lem ba da am wér yaram boo naanee ca sàngara ba da am mbégte waaye ma yëgal la dexu ndox moomu bokk ak sa ndox mi nga xam ne boo ko ubbee lu yàgg mu forax wala mu nëpp wala mu yàq wala mu xeeñ wala mu ay mbaala mbaal de mbaala mbaal mooy verte verte yooyu ndox moomu du am loolu de ndox ma na mel na mu jekkee set rafet noonu lay mel te boo ci naanee saa booy gëndi di naan muy gëndi neex dexu sooba du forax de du nëpp du yàqu de te boo cay naan da ngay am kattan pire foo ti toll dexu lemba doo ko nan mandi de te saako boo koy naan da ngay am wér-gu-yaram doo feebar de dexu sàngara ba bokk la bu xasaw xeeñ bu xasaw bi nga xam ne nii boo ko naanee daal di tàggaloo sa ko de di def ay musiba ak njombe de bee boo ko boo ubbee butéel ba xet ga cay génn moo dàq parfum te soo koy naan du xasaw doo màndi te boo koy naan da am mbégte ah gaa ñi a ngoog cheikh li muy lépp a jag moom cheikhu tijaan radiallahu taala anhu moo tax Ibrahima wax loolu moo tax seex toog ba yàgg mu ne qadamaaya haataana ala raqabati kulli waliyillahi taala min ladun aadama ila nafxi fi suur waaw ne sama ñaari tànk ndëggu yi teg naa ko ci loosu kuy wëlli yu la dalee ci maam aadama ba keroog wal buftu ba wëlli yu buy tiim cheikh dootu fi am waaw laqad rufiat rayatu uslubi cheikhina fa man chaa fal yumin wa man chaa ankara damaanu nabiyillahi nafi inqitaahi la Seydi Hajji Maalik wax ca xasidaam ba ne drapeau cheikh mu ngay folote kum neex gëmal kum neex weddil waaye rasulillahi moo garanti cheikhu Tijaani moo tax tariqa cheikh sëñ Babacar Si ne fala tara min أهله أبدا فلا ترى فلا ترى أحدا من أهله أبدا إلا وسيماه في حسن وتزيين طالب الشيخ يقول لنا رك كوتش gis day mën a sañse day set day civilisé day mën a jaamu yàlla day ragal yàlla day am worma day am teggin day fonk doomu aadama loolu la sëriñ Cheikh di jàngale ndeysaan mu ne sama ñaar tànk yi teg naa ko ci loosu kuy waliyu موتا شيخ الحاج عبد الوهون فمنكرا حزب الشيخ تجاني حزبك باني دع عنك قولك هذا ندخ فمال الشيخ يساني شيخ الحاج عبد موم واخو سا شيخ واي نين كوريلو شيخ رك يوم لين دي جيما ويدي سا تروخ تانغي ني سكنم غا جاكارلو موم واي دع عنك قولك هذا فمال الشيخ يساني باي دي جيما دينغات كوريلو شيخ باي دي لين جيما خاص bàyyi di jéem a yàq seen der ndax cheikh mooy première bu amul deuxième yàlla ko bindi ni mu ko bindee moom cheikhu tijaani barzaxul maktum taajul arifin waaye koo xam ne ni nag aliyu tamasini aliyu harazim ibrahima rayahi mouhamadul ghali cheikh alhaaji omar fouti alfahima yoro wele maam cheikh sidil haaji malik maam abdoulaye ñas ah sëriñ sidi aboubacar si Mam Sidi Ahmed si sur Mansuur Cheikh Alhaaji Abdou Baye Ñas ah ponk li guur yàlla yooyu yëpp moom lañ jox bop xam ngeen ne du ci xaan te ñi ma limal ku ci nek rek ku ci nek rek doyna seuk ñu xam kan mo Cheikh Tidiane radiyallahu taala anhu sunu mam Cheikh Alhaaji mar fouti yeggon na ci maqama ci mana ber tariqay bopam bima ko naree def rasulillah dana ko dina ko ya Cheikh Cheikh Umaru boo beree sa tarixa bopp doo am garante jàppal ci tarixa yi fi nekk mu ne kon tànnal ma mu ne ko tànnal naa la tariqatu tijaniya rasulillahi moo tànnal cheikh alxaaji amarul fuuti tariqatu tijaniya kon loola la muy firndeel mooy tarixa cheikh mooy tarixa rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam waaw mooy tarixa bi nga xam ne wuutewul ak sharia daa dëppook sharia ci lépp waaw yàlla daa fonk lool parce que wayjur nit sak am yàlla nga ko ci say wayjur looloo tax yàlla jox wayjur faveur ne doom respecté sa wayjur rikki waay na nga fexe ba làq sa ngërëm ne wayjur bu la sa wayjur meree ma mere la bu la sa wayjur gërëmee ma gërëm la ridallah fi ridal walidayni wa suxtullah fi suxtul walidayni lu waral loolu parce que wayjur daa fonk ci daa foor ci doom waaye nag buñ la waxee loolu nag day fekk la mu lay mere dëppook sharia waaye nag bu fekkente ne lu wuuteeg sharia la yàlla da ciy génn ba set wecc sa doom bëgg a julli nga ne ko bul julli soo ko meree yaa xam sa doom woor nga ne ko bëgg a woor ko doo woor soo ko yaa xam sa doom bëgg dugg ci diine l'islam nga ne ko boo ci duggee ma bàyyi la soo ko meree yaa xam waaye nag sa wayjur bii gëm na yàlla yow gëm nga yàlla yaa ngi appliqué muy appliqué mu sant la loo xam ne neex na yàlla neex rasulilaay nga lànk bañ ko ba mere la ca yàlla dana la mere rasulullah dana la mere moo tax tarixa cheikh li werd bi foor foor foor sooy werd sa yaay bu la woowee na nga ko wuy ji sa yaay bu ñëwee di wax ak yow téer sa kurus fi nga yem waxtaan ak sa yaay ba soxlaam jeex nga continuer sa werd sa papa bu ñëwee di wax ak yow téer sa kurus fi nga fi yem waxtaan sa papa ba soxlaam jeex nga continuer sa werd sa sëriñ bi la may tariqa bu ñëwee di wax ak yow téer sa kurus waxtaan moom ba soxlaam jeex nga continuer sa werd lolou moy sharia so de julli sa yaay di la wo wala sa papa di la wo te fek yaangi yang julli yaangi ci bir perang bi sa papa ngi ci bir neeg bi nala abdallah abdallah ne papa maa ngi julli yàqul sa julli waye boko tankablo bagn ko wuyu mu def nga musiba pour wan la degeere yi woy ni mo foré mata tariqa bi dafa jox woy akam ci tariqa bi

loolu nag mbir mu kawe la waaw Cheikh Tidiane ne sunu maqaama bii ñu yàlla jox amul kenn ku fa yegg ci wëliyu yi amul kenn ku koy jege sa mbir réyewu ko nag ba nga mën koo jege réyewoo ko mbir ba mën koo jege tuutiwoo ko mbir ba mën koo jege mboolem wëliyu yi ba këral ñuy wal buftu ba amul kenn koo xam ne di nga yegg sunu maqaam bii ñu yegg sunu maqaam bii kiñu ko rang di rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam, niko yalla tanne won ci bir yonenti ba ken mënu koo tiim moom rasulillahi noonu la ko yalla tanne mom cheikh ba ken mënu koo tiim moo mu ne jaddi tamuddu jamii anbiya sama ruuxu mam rasulillah moy tëbb kuy wëlli kuy yonent bok waaye wa ruhi man cheikh tamuddu jamii awliya may kuy yu waaw ñaka xamna mo warul nek وفي حضرة إيه، آه، كل سيوحي فقول الحق منفردا من حضرة الغيب إن الرب أعلاه حضرة الغيب يبقى فدمي فقور يا لي دجي كوني خمغ كلا تك تانك فوف نك شيخ تجال موي كليفة كون موي نون شيخ نغوك برزخ المكتوم تاج العارفين ممد كل أولياء الرحمن متخ بانكلي بكو تاج واو بانكلي بكو تاج باينس نينا خير سيوخ الدهر بالإطلاق إمامنا التجاني ذو الأخلاق برزخ كل عارف وأصل لهم وينبوع وهو شمشه موتاخ سري بابكر سيني قد الوجود الذي أبدى ولايته ربي وآدم بين الماء والتين نينا شيخ ما يقد بيغا خمني أبدى فين ولايته ولايام wala abda feeñal na wilayatahu ak wilaayam rabbi sama borom wa Adam baynal mai watin. wa tin cheikh moy xutb bi nga xam yalla yàlla na ak wilayam te bob maam adam mu ci diggante ndox ak ban comme ni rasulillahi won ne moy don khatimul anbiya yi te bob maam adam mu ci diggante ndox ak ban gis nga ñaar dimension yoy cheikh dafa ndurok mamam ci lu bari rasulillahi bi mi xamne moy moy don khatimul anbiya boobu maam aadam mu ngi ci diggante ak ndox ak ban wa kaana nabiyan aaliman bi nubuwatihi wa aadam baynal maayi wa tiini alaaji Mansuur moo ko nettali loolu moo dal cheikhu Tijaan radiallahu taala anhu moo tax kenn du cheikh moo tax sëñ Babacar Si ne wa shamsu waaw fal xaqu yaalu mën a dëgg mooy kawe wala yulaa alayhi naam te dara man te gën a kawe dëgg fa munkirul xaq nag fil xusraani wa diini serigne babacar si neene kuy weddi dëgg yaa yang ci pertang yaa ngi ci perte yaa ngi ci alkande ndax dëgg moy yalla yalla mom dëgg dëgg nak dara mënu ko kaw shamsu in talaat yaghsal bilaada maan diya'uha wa taraha aynu ta'yini mu jant bu feeñee léram gi day muur dëkk yi léral lepp waye nak léray bobu bëtu jaglél moko gis wa da am ñoo mënu ko gis waaw wa jant bi nak moy cheikh wa serigne Babacar sine ne wal aynu in ramidat in ramadat tabdu kalalatuhu waaw bi nazrati shay bi laa tarnu ila duni nee na bu fekente ne da wanent bët bobu na gis jant ta boo ne ko jant baa ngi ne man te mun la gisumako ko parce que beut ba wanent mun ko xol suko ko day sa day saf sap ci beut ya motax day gem du ko nga xol xool cheikh nak ay mbiram non la mel li ko yàlla may du ñëpp ko mëna gis ma sha Allah taala ku yàlla nam ci yow yiw ku yàlla nam ci yow xewal ya koy mëna gis ma sha Allah taala sëñ baagas del na fa mustaqimi akhi ta'mul taamul furaati fihi maskumuna na fi rayahini sëñ Babacar si nee na bu ko febar nit ko febar soko joxe joxee lu ceeb bi saf saf saf saf saf suko lekke lekkee day lewet ci mom parce que da febar wérut wa cheikh nak li ko yàlla may ku am jàngoro wala nga feebar doo ko mën a gis te doo ko mën a yëg loolu la yàlla dogal sëñ Babacar si dellu si daal daal waxaat ne ku ku soj boo piisoo woon parfum bi gën a neex it boo ko tiimee danaan xeeñu ma rek parce que bakkan yaa baaxul bakkan yaa jagut waaw cheikh na noonu la mel li ko yàlla may fa tabaarakallaahu borom bakk euh, borom bakkan yu baaxu mënu koo xencu waaye borom borom gémmiñ gu feebar it mënu mënut a yëg caf ko ga macha allahu taala borom beut bu wanenti it mënut gis leer ya sha allah taala kon mu ngi nonu okay kon cheikh limu am yalla mako ko may wa dana ko fa jaddi rasulullah taha muhammad te li ibrahim rayaxi moo moko moo way lu cheikh defoon wessar la won mu jël ko def ko qasida da koy way mu ne fa jaddi rasulullah taha muhammad sama mam sayyiduna muhammad ah mooy sama maam fa jaddi sama maam soo ko xamul man cheikh man la mooy rasulullahi koo koy kan man la mooy taaha koo koy kan la man la mooy muhammad mi yàlla cité ci alquran naan muhammadun rasulullah ana ahmadu tijaani nag man maay seexu tijaani mi nga xam ne xatmul ajillati sama maam mooy rasulillahi waaye man cheikh maay seexu tijaani mi nga xam ne maa kasteg wilaaya maa maa ko tëj waaw mu ne fa rijlaaya haataani ala kulli aarifin min nafxati wa ruuxi tamuddu alaarifina wal awliya wa ruuxu nabii ahlu nubuwati cheikh nee na sama ñaari ndëgg yi teg naa ko ci kuy loosu kuy aarif billah la ko dalee ci aadam ba kara ñuy wal buftu ba sama ruux man cheikh mooy tëbb aarif billah yi mooy tëbb comme sama ruuxu maama rasulillahi ni muy tëbbee ñi nga xam ne ñu amee ak nubuwa te wa kullu waliyin kayfa kaana bi baxrina umiddu bi qadri ma lahu min fadilati bépp waliyu ak ku mën doon man cheikh maa lay tëbb ci kemtalaay la nga soxla waaw tabaarakallahu ndax bul fàttee nag am na ñoo xamante ci baaraam mu ndaw ba leen tëbb ñii ci baaraam bu mag bi ñii ci beneen baaraam bi yemuñu ndax wëlli yi ñu garaat ku ci ne na nga toll sa garaat na mu tollu cheikh noonu la leen tëbbee waaw fa maa aarifun illa bi baabi waaqifun wa min faydati amsa waliyan bi lamxati amul benn aarif billaahi du lu day taxaw ci buntu cheikhu tijaani waaw moo tax nga doon dara fa nga ma seex waaw nag cheikh nee na ci sama faydu ci ngay mujjé ci xefa xep rek doon waliyu waaw man ma sha allah lay tëbb rek ci xefa xep nga doon waliyu waaw wa ma faada min zaati nabi muhammadin talaqathu zaati dahri duna wasilati wa minni tafarraqat fuyudul khalifati fama zarratun illa wa fazat bi qismati bi wasitati wal kawn minni takawanat bi asri inqad al wujudi bi jumlati oh yàlla ñu yàlla xamal cheikh yàlla ñu yàlla xamal Cheikh Tidiane yàlla nañ ko gën a xam doo na solution lim ñu indil istixfaar gim ñu indil buñ ci saxee salaatu ala nabi gim ñu indil salaatu fatiha bi ñu indil buñ ci saxee laa ilaha illallah bi ñu indil buñ ci saxee waaye dama lu gën lii ci àdduna lan moo gën istixfaar taalibi cheikh saa bu nu xëyee ñu koy def istixfaar gis nga réew mii buy dox ba tey ca dëgg dëgg dëgg war nañ koo sante taalibi cheikh yi yàlla dane woon rasulillah yi sa sa xeet wii fekk ñu ngi def istixfaar du ma leen mbugal xool leen ci àdduna bi nag ñan ñoo fi ëpp lu ñuy def istixfaar taalibe cheikh yi la ñooy xëy ci ñooy xëy ci jàkka yi na astaxfirullah azma allazi la ilaha illa huwa alxayu qayum astaxfirullah la ilaha illa huwa alxayu qayum ñooy gontu ci jàkka نن أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم خالل ني جولي رسول الله تي ريومي نان لا طالب الشيخ يوي جاكنا اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح المغلق والخاتم لما سبق الناس الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى ال حق قدير مقدار عظيم نيوكاي ديف بكره واسيلا نيوكاي ديف صبا laa ilaha illa allah toog ci jàkka yi te bul fàtte na wa annal masajida lillah jàkka yi ko moom ñu toog ci kër yàlla ci néegu yàlla naan laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah laa yi la kon fa tabarakallahu loolu ñoom la ko yàlla jagleel jaare ko nag ci sëriñ yu sëriñ si di cheikhuna tijaani barzaxul maktum taajil aarifin mu mbi di kulli awliya rahman kon tabarakallahu Sénégal bu amee sécurité boo amee kaaraange grace à talibé cheikh yi ndax ñoo fi jéggalu seen borom ñooy julli ci rasulillah ñooy bàkk yàlla ci laa ilaha illallah lépp nag doon leer tasaaroo ci réew mi di Sénégal ba jàmm man fay nekk yalla na yàlla doole sutura yàlla na yàlla gën a loo cheikh yàlla nañ ko gën a bëgg yàlla nañ ko gën a sopp koo xam ne boo ko soppee balaa ngaa dee doon wëlliyu sopp ko farata la walan yamuuta man yuhibbu shaykhana illa idha sara waliyan bi'tina te ki ko wax ku ñuy déglu la te koo koy kan mooy Cheikh Sidi El Hadji ne képp ko sopp cheikh balaa ngaa dee moo xam da ngaa dem bay sukuraat ñu groof la garaatug wilaya nga deeyaaleeg waliyu waaye balaa ngaa de don waliyu sop cheikh rek waxuma sax nga doon taalibe cheikh taalibe cheikh gaañu lu ne koo xam ne boo doonee taalibeem da ngay dem aljanna dem aljanna sa papa dem aljanna say doom yi yor sa sant dem aljanna sa goro yi la may jabar dem aljanna boo amalee nit bor te amoo loo ko fayee amoo loo ko fayee nag wax te amoo loo ko fayee bu yomal xiyaamee yàlla jël ci magasin yi yóom ya fayee la sa bor koo xam ne boo doone taalibe cheikh boo jéggi ëllëg siraat jawaasuhum kawaahiril malaayika minnatan lil malik boo jéggi siraat da ngay jaar ci mbaggu malaayika yi fa ngay toog malaayika yi naaw ak yow nga dugg aljanna ñu ne waa lii moom fu mu jugee ñu ne xéewal la bàyyee ko yàlla yàllaa ko jox si taalibe cheikh yi bu ko weddi nag ndax wa anna al fadla bi yadillahi yuti man yasha wallahu zul fadlil azim yàlla moom ngëneelam moo ko jox ko neex loo ci mën tànn sayyiduna Muhammad mu gën ñëpp moo ni cheikh muy wuliyu mu tax kas wilaya kon fa tabarakallah koku moy sunu serign di abul abbas di barsakhul maktum tajil arifin momit di kulli awliya rahman yal nañu ko yalla soplo amul lenn lu ñuy duut baaraam xam bi lepp da deppok shariatul islamiyya kon bokk non lolou la indi won tay wer wi di allahu taala kon waxtane ko ci weer yi farata la cheikh nag ken mënu koo dañ ci wax liñu xam rek wala ñu teewlu rek li ci des ñu bàyyi ko ndax cheikh géej la te géej nag as du ko jeexal kon yàlla nañu yàlla def dëgg dëgg taalibe cheikh moom la Sidi Xaaji Malik ñaan moom la Sidi Aboubacar ñaan mag ñi am cër ñëpp li ñoo ñaan yàlla doon ay dëgg-dëgg taalibe cheikh yàlla nañ ko yàlla defal wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu seen mbokk seen soppe al Oustaz Alioune Faye